kon mbokk yi sëriñ Bassirou Abdou Khadre porte parole xalif général des Mourides ñëwoon seet si sëriñ Modou Kara ci màggalu daaru ren bi voilà mu mel ni sëñ baa ngi noonu ngeen koy seen ginnaaw bi mu gisanteeg euh, sëñ bi euh, ba noppi ginnaaw euh, ziaram sëñ baa ngi noonu di wàcc ginnaaw bi mu ziare sëriñ Modou Kara Mbacké wëllëreem ba noppi waaw mi ngi noonu di wàcc Cheikh ah, ah, ñu ngi Cheikh bu baa ngi noonu ànd njabootu borom Touba gépp ñëwoon seet si suñu Modou Kara donc ñu ngi noonu di wàcc. voilà baa ngi noonu di déyanteeg Serigne Galas Kaltum mu Alaaji Baara Mbacke Fàllilu ñëwoon seet si Serigne Modou Kara fii ci Kër Noreyni ci màggalu ren bi voilà donc sëñ baa ngi noonu di waxtaan ak euh, Serigne xal sëñ baa ngi noonu di génn sëñ baa ngi noonu di génn voilà sëñ baa ngi noonu di génn ginnaaw bi mu defee ziaram ba noppi gisee sëñ Modou Kara ci màggalu daaru ren bi voilà voilà voilà sëñ baa ngi noonu di génn sëñ baa ngi noonu di génn arrière mu arrière murit sëriñ Muntaxa ñu koy ñaanal yàlla mu yàgg fi loolu te wér ñëwoon seet si sëriñ Modou Kara Mbacke voilà du Kara bi sëñ Axma ngeen di gis noonu di xàllal yoon bi sëñ bi mu ngi noonu di waaj a yéeg otom sëñ baa ngi noonu sëñ baa ngi noonu di yéeg otom voilà voilà xanaa mu mu mu mu sànni taalibe ñaan rek balaa moo balaa moo dem rek mu sànni taalibe ñaan ah, sëñ baa ngi noonu ànd ak sëñ Ahmadou Mbacke Kara ak sëriñ xalil Mbacke moom Cheikh Ahmadou Kara donc euh, ànd ak délégation am ñëwoon seet si wala réem xaritam sëriñ Modou Kara ci màggalu maam Thierno Birahim bii nga xamante nii du dara lu dul daje gi sëñ Touba daje woon ak maam Thierno ci ñibbiseem ci tukki géej gi mi ngi noonu nag sëñ bi di tàggatoo ak njaboot gi voilà voilà sëñ bee ngi noonu di dem Mbacke sëñ Ba nga